mbay ma ndaw muy faral di jàllale message yu am solo mm, di ko jàllale ci noo xam ni ñëpp dinañ ko mën a seetaan tey nag dañ ko seet si fas yéene seq ak moom ci lu jëm ci eh, waxtaanu politique waaye ak waaye réew mi kon xam naa bala ñuy gën a guddal danañ ko bàyyi mu nuyoo ak sunu internet bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. waaw euh, jërëjëf euh, Ben Ahmed maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, di kontaan si interview bi nga xamante ne defal ngeen ma ko. di nuyu ñi nga xamante ne ngi suivre info 221 aussi tamit ak wa buzz 221 mu ngi noonu comme ni ma ko waxee si tàmbali bi rek kontaan na lol lol lol lol si interview bi nga xamante ne eh, defal ngeen ma ko déplacé wu jóge fu sore ñëw bu fii ngor eh, pour defal ma ko en tout cas merci beaucoup. jërëjëf Mbaye mm-hmm. bi nga nuyoo ñu dugg ci li nga xam ne eh, waxtaan bi. Mm-hmm. ñu commencé ko rek ci li nga mooy rassemblement bi nga xam ne organiser nañ ko démb. Mhm. ngir xeex milliards yi nga xam ni. Mhm. jot nañ ko luubal ci Covid 19 bi. Mhm. mu nekk rassemblement bu réussir ci jamono boobee gis nañ fa nit ñu bëree bëri gis nañ fa ñoom Mimi Touré. gis nañ fa tamit ñoom Pape Djibril Fall. ba ci Pape Djibril Fall moomu sax mu mel ni démb am na euh, ay jafe-jafe yu mu fa jot a dund. Euh, ba tey génn na def benn point de presse di ko naqarlu mm-hmm. ndaka nga gisee point de presse bi nga xam ni Pape Djibril Fall def na ko ak mm-hmm. taxawaay bi nga xam ni démb yenn ci patriotes yi taxawaay taxawee nañ ko ci assemblée euh, ci place de la nation bi waaw fi may njëkkee rek mooy taxawaay bi nga xamante ne patriotes yi taxaw nañ ko foofu maanaam wuyu ji ab euh, woote bi nga xamante ne Ousmane Sonko woote na woote woon na ko li may njëkk ñi rek mooy def nañ ko ci respect def nañ ko tamit si si si si yar ak teggin Euh, te ñooñu ñu en masse kon mën naa wax foofu li ñu bëggoon foofu réussir na maanaam euh, euh, non seulement message bi jàll na gis neen aussi mbooloo mi macha allah bëri nañu woon lool lool lool lool lool lool lool li may wax foofu rek mooy comme te réussir na message bi jàll na xale yu aussi ñi nga xamante ne ñu ngi fa woon bokk laa bëgg a wax gis neen seen comportement Euh, bon li may wax si teewaayu euh, Pape Djibril Fall ak la nga xamante ne daj na ko manam, maanaam yuuxu yi nga nañu ko man bi ko gisee yàlla dafa def demo, ndax euh, dama jàppoon liggéey bi ko seetaanee dama koo naxarlu waaw bima sama réaction bu njëkk bi mooy dama koo naxarlu ndax damaa jàpp ne boo wootee rassemblement pour dénoncer millions yi nga xamante wala bok milliards yi nga xamante ne jàdd na côté su côté lu jëm si Covid 19 nga wootee rassemblement pour ñu naxarlu ko. Euh, Pape Djibril Fall ñëw fa yuuxoo bi bon man rafetlu ma ko woon te gis nañ aussi ne Ousmane Sonko tamit àdduna si donc après nag li ko yàq nag moom dafa xëy def euh, euh, benn interview boo xamante ne dafa wax loo xamante ne ah ña nekkoon foofu day gisuñu loolu wedduñu nag yuuxoon nañu ko mais gisuma fenn foo xamante ne comme moom lu mu ko expliqué ñu yor arme bëgg ko attaqué wala bëgg jël bakkanam loolu day ah wax dëgg neex suñu borom. ñun day vidéo yi ñu gis gisuñu fa dara laa xamante ne nuroo na ak attaque lu dul booy yuuxu neen ko ñu jël ko dugal ko si oto mu ñibbi loolu daal laa xam ne ne <laughs> xaw ma nag lan moo sabab mu génne waxee à ce point mu ngoog. waaw jërëjëf Mbaye. Mhm. Euh, leeral yi am na solo. Mhm. Euh, ñu jàll rek ba tey ci li nga xam ni actualité la yàggul <coughs> waa ci muy euh, docteur Alfousseyni Guèye bi nga xam ni ab gynécologue la boo xam ni. Mhm. Euh, bi Adji Sarr jugee nii dafa euh, dañ ko violé. Mhm. moom moo demoon consulter ji ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr. moom moo mhm. saytoon Adji Sarr. Mhm. ndax kii li muy wax dëgg la am déet. Euh, jëloon li nga xam ne moom moo di rapport bi. jébbal ko gendarmerie ñu gis tey benn audio génn. ki nga xam ne moom moo di Mamour Diallo. nga xam ni doyen des juges déglu na ko daanaka ci loo xam ne ñu bëri yëguñ ko. mu mu tam tam weddi woon ni dafa dafa laale ci mbir mi. tey ab audio génn. ñu koy ñiy gis muy harcelé ki nga xam ne moom mooy docteur Alfousseyni Gueye yaa que euh, ci jamono boobu noonu mu euh, livré ko li nga xam ne moom moo di euh, li nekk ci biir certificat de médical bi. résultat yi ci résultat yi. Mhm. ndaka nga gisee loolu noonu muy audio yoo xam ne génn na tey. Mhm. te Mamour Diallo doon weddi nii bokkul ci mbir boobu. Mhm. tey ñu gis audio mu génn muy harcelé benn. médecin boo xam ne si liggéeyam la nekk. liggéeyam lay def ah waaw loolu moom dinaa sawar wax si loolu sax vraiment. ndax euh, bi nga xamante ne mbir ni jug na euh, Ousmane sonk mi nga xamante ne moom lañu mooy ndey la ji bu génnee tourment mu Diallo la ñëkk tudd lu jëm si complot ñoom ñi bokk seen camp ñu weddi ko ñu ne loolu amul parce que euh, yaakaar naa Ousmane sonk moo yóbbu boppam si bët comme ñoom comme moom ni ñu ko waxee. Mm. yàlla def jamono di dox jamono di dox. ba audio bi nga xamante ne ñëkkoon na génn Adji Sarr enregistré ko. loolu rek foofu rek nit ñi seen xel waroon na tey à ce que euh, Mamour Diallo kon lépp loo xamante ne waxoon nañ ki si mbir mi rek moo ko def euh, bon sénégal yi itam xam la du ma ne yi mais ñoom ñi nga xamante ne ñoo euh, ñoo ñoom ñoo bokk camp ak Mamour Diallo gisuñu loolu tey nag bi nga xamante ne audio bi génn na mu nekk quelque chose de catastrophe ndax man mënuma comprendre nga sante benn mbir doctor koo xamante ne état bi daf ko reconnaître ñëpp xam ko si wàllu xam-xamam moom mu wax la ne la ah heure sàngam day wala euh, jour nangam si lay mën a disponible pour ñu livrer la affaire yi yow nga ne que déedéet dama ko bëgg kut ko kut loolu rek day firnde ne day firnde ne complot bi nga xamante ñu ngi ko doon tudd mu koy bañ loolu daf ko gën a confirmer mu gën a confirmer aussi ne mbir mi nekkate ay tàppale kese la

ba tey ñi ñuy waxee yéen ni amul benn audio ni photo ni vidéo bi confirmer ne viol bi am na parce que aji Sarr viol la accusé ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu dem ba si biir loolu amul waaye yàlla def si euh, si coobareem yàlla def si coobareem ñi nga xamante ne ñoo orchestré woon mbir mi ñu dem kenn par kenn di feeñ ñii di feeñ ñii di feeñ ñii di feeñ ba audio bi génn donc ce que veut dire que comme ni ma ko waxee léegi bu fekkee ne réew mi réewum justice la comme ni ñu ko waxee Mamour Diallo nëgër ne caabi da ko war a ginnaaw ndaxte lii lu na fàng kenn du ko jeex waaw mu ngi noonu. waaw ah, jërëjëf Mbaye eh, ba tey dañu daal des ci mbir yi rek eh, ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo ñeel mbirum Cour des comptes. muy mhm. rapport bi nga xam ne fësal na ko. Mhm. jëm ci Covid 19 bi nga xam ni. Mhm. bëri na ci sénégalais yi ñoo xam ne sonoon nañ ci lool. am ñoo xam ne seen i liggéey arrêté woon na ci. am ñoo xam ni tamit yëkkati nañ seen dërëm ak yi seen i ñaar dërëm dajale lépp si jox li nga xam ne moom moo di état bi mm-hmm. ci jamono boobu nag ñu ñëw ba léegi mm-hmm. rapport bi génn nii mm-hmm. milliards yi nga xam ne dajale woon nañ ko teg ko ci euh, état bi ngir mu xeex li nga xam ne moo di covid bi gars yi dañ ko doon luubal ci suuf ba nga xam ne rapport bi fësal na ko euh, naka nga gisee boobu euh, boobu rapport nga xam ne génn na fësal ñi nga xam ne ñoo doon caxat-caxatee boobu xaalisu covid 19 ak ndax jàpp nga ne tamit yoon dina def liggéeyam ba mm-hmm. euh, euh, doxal ni mu war a doxalee ci ñooñ nga xam ne ñoo lubal xaalis bi. waaw jërëjëf <coughs> jërëjëf ci question bi question bi euh, na solo trop dinaa sawar nag tontu fi ndaxte li nga xamante ne mooy rapport Cour des comptes bi wane ne maanaam gars yi jalgati li nga xamante ne mooy alalu askan bi. Mm-hmm. li ma gën a mbir mbiri Covid 19 bi ñu bëree bëree ba jusqu'à présent xam naa si ñoo xam ne. ba jusqu'à présent si lañ jógee ñàkk seen liggéey. ngir lan di ñu naan euh, dañuy wàññi personnel bi respecter les mesures barrières euh, euh, jaaykat yi nen doxalee ni taximaan yi léegi dootuñu yebati trois personnes nen yeb deux personnes kenn si kanam kenn si ginnaaw loolu yëpp ñu jël ko teg ko ngir lan. ngir mën a mucc si feebar bi nga xamante ne balaa la woon sax yàlla wàcceel na ko fi ñoom cependant ñu ngi profité di jéem a nax askan wi di rawale alal goo xam ne euh, euh, euh, réew mi moo moom signalé ay nangami milliards yoo xamante ne ñu ne dañ ko see def te amut Cour de comptes génne mbir mi ne ah luubal am na si mbir mi justice waroon def liggéeyam si loolu ñin si tudd ñu woo leen déglu leen andi ay leral mais loolu jusqu'à présent amul ma ngi dégg sax Mansour fay mu ne euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu euh, Cour des comptes ay politiciens leen donc mu que euh, quelque chose bo xam ne kenn xale bu ndaw sax mënul mënul comprendre li nga xamante ne moo mooy xaw Sénégal ci état état du Sénégal ñi nga xamante non seulement li ñuy yéré réew mi baaxul mais taka cakajee gi ñoo taka cakajee alalu Sénégal ba paré nak di jaay intellectuel saa yu leen génnee la benn mbir ñuy profité di dem si rajo yi ak si télé yi pour jéem a démentir li nga xamante ne ñoo la leen accusé te ñoom du si tele bi wala rajo bi la ñuy euh, euh, war a waxee wala si la ñu war a démentir war a dem si yoon wala bokk ñoom sax ñu woo waa yoon ne leen ah ñun comme te dañoo tudd si mbir mi ñëw leen ngeen def seen liggéey waaye comme te boobu ba tey amut mooy li ma may faral di wax rek bu yoon deful liggéeyam incha allahu taala bu yàlla defee Ousmane Sonko jël réew mi 2024 loolu yëpp dinañ ko tagaar si table ñu àtte leen fay xaalis bi ba pare ñu tëj leen si kaso bi loolu daal laa si gis jërëjëf mm-hmm. Mbaye eh, kàddu yi leer na dañuy daal di jàll rek ci eh, dossier bi nga xam ni moo ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr nga xam ni jamono ji dafa mel ni daanaka ñu ngi ci eh, cëppaandaw la ndax gis nañ tam doyen des juges mm-hmm. doon na laaj kenn ku nekk say avocat mm-hmm. ngir maanaam ñu tëj li nga xam ni moom moo di dossier bi ci ginnaaw bi nga xamee ni jot na bépp preuve wala mm-hmm. bépp témoignage boo xam ni mm-hmm. dafa laale woon ci eh, mbirum Ousmane Sonko ak aji Sarr mm-hmm. euh, ndax jàpp nga ni dossier bi war nañ mën a ñëw rek tëj ko noonu wala euh, da nga jàpp ni dossier bi war nañ ko mën a topp ba ca fin ba xam ñi nga xam ne ñoom ñoo làqatu ci ginnaaw dossier bi am déet waa lii yoon de mooy loolu tey jii amaana boucler bi mu ko bëgg boucler damaa xamul lan moo lan moo sabab loolu ndax tudd nañ si ñenn ñoo xamante ne euh, euh, euh, doyen des juges bi war na leen woo ku si mel ni Mamour Diallo dégg naa nag woo neen ko mais dégg naa si benn influenceur bu mag bu sénégalais yi déglu muy Mola Morgan démentir loolu. donc même bu dul Mamour Diallo am na ñeneen ak ñeneen comme ay gab yi ñeneen ak ñeneen tudd nañ leen si mbir mi. mbir moo xamante tudd boo xamante ne dafa leer day leer na ne ñoom dugal nañ si seen loxo. Mhm. waaw ñooñu avant nga boucler dossier bi. comme ni ko defee si MC Niass mi nga xamante ne dafa génne ne moom am na ay audio yoo xamante ne waxtaan na ak ki nga xamante ne mooy Adji Sarr muy wane ne ne mbir mi ay tappale kese la dañ ko see dugal te diw moo ko si dugal mu woo MC Niass jox ko MC Niass jox ko audio yi ni mu ko defee si MC Niass noonu la ko nar defee si keneen ak keneen ak keneen ah bu boobaa nag mu jóg a boucler euh, li nga xamante ne mooy dossier yi bu ñuy dem procès ñu dem procès waaye euh, euh, procès boo xam ne yaa ngi dem procès ki nga xamante ne moo accusé non seulement andil la benn preuve yow ki nga accusé andi preuve wone na ne li nga wax ni yëpp non seulement ay tappale la amul ba parene nag signaler ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëggoon li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, complot bi mu nekk nak lu leer nañ comme ni ma waxé Sénégal justice bi fu mu toll nii lii yàlla xam doyna légui nak nag ba mom xëj na peut-être décider né pour clôturer que après nañ xol ba xam lan moo xew mais nekkul loo xamante ne daf ko war a décider ginnaaw ba ñoom ñoom ñoo ñoo ñoo nekk su nguur gi ah nañ seetaan rek ba xam xaw ma nan la ko olof Ndiaye lébatee sax. Mm, ñu desandi ci audio yi Baye Mbaye émission yi nga wax sànq. waaw waaw ndax gis nañ tamit euh, audio yi ni muy génnee temps yi. Mm-hmm. keroog ñu gis ojo boo xam ni Adji saar lim na ci ay personalité yu bëree bëree bëri. am ñoo xam ni gëm nañ ko am ñoo xam ni itam jàpp nañ ni. Adji Sarr foofu dafa faa wax lu dul dëgg yow sa gis nin ci li nga xam ne moom moo di audio yooyu lu mu doon da ngay confirmer li Adji Sarr wax ou dangay da ngay weddi li nga xam ne moom la Adji Sarr wax waaw damay confirmer li Adji Sarr wax xam nga li tax hmm. ñun Sénégal dañoo am habitude maanaam ñaar ñi ñaari personnalité yi mën naa wax ne sénégalais du leen gaaw a fen ku si mel ni sa waajur ak sa sëriñ hmm. bu ñu déggee Adji ni muy ni mu waxee lu jëm si wàllu MC Niass avant audio yi génn mooy interview bi nga xamante ne amoon na ko si digganteem ak Kaliphone mhm. nga gis ni muy waxee euh, euh, bi bi bi Kaliphone di insisté di ko laaj ñax audio yi existé na moom dafa wane ne rek ne MC Niass kilifaam la bu ñu insisté mu ne kilifaam la donc ce que veut dire que moom pour maanaam génn si mbir mi parce que loolu la ko MC Niass piégé wax ma li am ñu jàppale la nga génn si mbir mi yàlla def mu woo ko bu fekkoon na sax MCNS moo ko doon woo ñu ne ah kon Adji Sarr waxul dëgg mais moom muy jël téléphone am woote wax ka li nga xamante ne am na si ñëpp ñi nga xamante ne nag tudd na leen si liste bi ndaxte yaakaar na <laughs> Adji Sarr xam nga loolu sax dof moo koy def di tudd koo xamante ne sequ leen dara xam xamu leen ki si maam Adama Awa ngay tudd tur tudd tudd diw tudd diw tudd diw ah après mu génn gars yi ñu ne non non non non non euh, euh, attaque Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tuddul seen tur. ñi nga xamante ne ñoo nekk au sein de Pastef tudd ñu seen tur aji Sarr moom moo wax ne diw ak diw ak diw daa leen fi jaar ba yegg fenn foo xamante ne sax jarul ma fi yegg du dëgg loolu nag bu ko waxee ab sëriñam audio yi am presque plus de mois donc lu ñoo mën a jàppale rek mooy dëgg la li tax nag dëgg la dafa euh, dafa coïncidé ak audio bi nga xamante ne euh, euh, Adji Sarr moo ko enregistré Mamour Diallo mu toog am ñeneen ñu toog loolu rek day confirmer ne la la dëgg la lu mu wax waaw mu ngi noonu kon daal euh, man sama wàllu boppa jàpp naa ne. Mhm. audio yooyu euh, c'est la réalité. est-ce que tamit. Mhm. Adji Sarr war nañoo mën a sukkandi ci war nañoo mën a sukkandiku ci ay waxam. Mhm. pour pour mën a dëggal dara ndax moom. bu fàttalikul moom moo fi génnoon ni Ousmane Sonko daf ko daf ko violé. Adji Sarr boobu itam. moom moo fi génn euh, dem ci ki nga xam ne moom moo di xam Diallo. ni moom d'accord na ni moo wax wax jooju mais daf doon piéger ki nga xam ni moom moo di. Euh, moom moo di. mooy mooy bàyyi meññ waaw waaw. Euh, ki nga xam ne moom moo di euh, magistrat boobu laaj ko ne ko yi ndax yow la mu ne déet daf doon piéger ki nga xam ni moom moo di. Mm. doyen des juges. jëmmi aji saar boobu itam bi nga xamee ni. Mm. kii di sëriñam di bàyyi bayam si. laaj na ko ci affaire yi ne ko ndax Ousmane Sonko daf la violé. Mm. dafa tourné waat ne moom daf doon piéger Sénégalais yi ñu Ousmane Sonko violé ko léegi ki nga xam ni changement de situation yooyu maanaam yooyu noonu yëpp nga mhm. ce que kooku war nañu mën a basé wu ci ay waxam pour mën a mhm. dëggal benn mbir. waaw xam nga li tax may basé wu si ay waxam ndax euh, yow boo ne dangay piéger euh, MC Niass yaakaar naa booy piéger doo joxe lépp mhm. booy dafa am technique booy piéger mën nga ko jox benn audio ba ñaar. waaye nag nit ki doo ko piéger ba pare chaque instant nga koy woo ah di ko wax lépp loo xamante ne am na si bi mi yow nga wëbbaltuku ne dama ko doon piéger ba xam ndax euh, euh, euh, maanaam nit ku am kàddu ma maanaam nit bokk nekk ne nit kuy garder secret. voilà yow boo ne secret rek boo waxee rek ne lii mu ko wax secret la ba pare nga ne dama ko doon testé loolu rek fenloo na la wan na ne la li ngay wax yenn wu sax maanaam. waaw ndaxte secret boo xosee ba tudd ko ba pare dama doon testé nit ki loolu loolu ay ay ay la euh, wax si Ousmane Sonko da ko violé avant tout dañ amut mais bi ñu demee bi enquête gendarmerie enquête gendarmerie dafa confirmer ne Adji ba gis nga capitaine Touré ñu ne ñu dem docteur moomu mi nga xamante moo ko rapport bi bu mu amul viol amul selon si heure yi mu wax ne si la ko Ousmane Sonko viol biñ ko xolé den ne amul biñ ñu ko aussi ces témoignages yi nga xamantene ño ñoo fofu foofu li ñu wax ne ah fi viol mënu fi am parce que nangam ak nangam ak nangam donc Adji Sarr bu génnee ne Sonko da ko violé yi dina yombal lol lol lol euh, euh euh ñu né waxul dëgg parce que dafa am ay preuves mais quant à nag audio yi nga xamantene dox na ci diggante waa MC Niass ak euh, bi ko kii euh, juge bi lu mu wax ne xawma lan dafa doon euh, dafa doon testé MC Niass mhm. yooyu mooy li ma wax si commencement bi rek yaakaar naa nit ki boo koy testé doo ko non seulement doo ko wax secret ba pare nag doo ko jox lépp du dëgg doo ko jox lépp da koy jox tuuti ba xam lan lay def waaye yor yebbaku lépp jox ko lépp ba pare wëlbatu ko ñu ñu ceinture la nga ne non dama ko doon testé loolu amul sens pour man mhm. waaw Pape Alé Niang bu yëngu ci wàllum investigation mhm. Euh, ñu téye woon ko fi mën nañ ni ci lu jëm ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr wala lu ci jëm ci mhm. dossier administratif mhm. euh, ci loolu lañu wax ni ci lañ ko téye mhm. ñu ñu gis ni dañ ko may liberté provisoire ci diggante bu gàtt ñu dellawaat ko ci li nga xam ni moom moo di prison bi ba moom mu déclare li nga xam ne moom moo di grève de la fin est-ce que tamit grève de la faim euh, grève de la fin boobu noonu mënu ko indil ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di wér-gu-yaramam waaw si grève de la faim mën na ko indil ay jafe moom ndaxte ku ne xam na ne grève de la faim dafa métti euh, dina ko indil ay ay jafe-jafe moom sauf que nag na ñooy ñaan yàlla rek mu teel ko arrêté euh, sinon bu fekkee ne daf ko continuer mën na ko indi ay gàllankoor te bu ko andiree ay gàllankoor ñaanuñu ko yàlla leneen maari deytaane mën na am te boo boobaa nag mën naa wax ne dineen dineen ñàkk élément koo xamante ne mbir mi bi mu tàmbalee ba tey mu ngi si wax wax joo xamante ne du dañ mm-hmm. voilà kooku tamit bu làqee bu ko yo euh, bu ko bu ko yoon làqee jant bi ndax lan li nga xamante ne mu ngi koy wax si mbir mi mm. ak leneen ak leneen ñu gisee ne peut-être mm. ne lii ah mën na indi jéeya comme ñoom si si loolu leen sukkandiku moo tax ñu arrêté ko donc euh, man day li ma koy conseil li ma koy wax rek mooy mu gaa mu arrêté li nga xamante ne mooy grève de faim bi euh, mm. jéem a xaar rek te xam naa ne moom tôt ou tard incha allah day métti rek mais dina génn te gëm naa ne bu génnee it position bu mu taxawoon sax euh, dina taxawaat position bu ko raw si hmm. lu jëm si wàllu dénoncer euh, euh, mal gouvernance bi nga xamante ne moom la Sénégalais yi di dund instant bi est-ce que tamit grève de la faim solution la ci li nga xam ne jàpp na ni war nañ ko mën a libérer muy grève de la faim yi nga xam ne mi ngi koy faral di amal ndax gis nañ ko. Mm-hmm. des dafay nekk ci grève de la faim bi bañ ñu mm-hmm. euh, mu ko seqal donte ne dafa def grève de la faim sax ñoom loolu taxul ñu reculer. Mm-hmm. comme ni nga expliqué ne dañ koy yóbbu hôpital bu amee tuuti stable ñu yóbbuwaat ko si kaso bi. léegi bu ko defee ñaar ba trois reprises ah mën na ko indil euh, euh, euh, musiba. Mhm. te bu bu boobaa rek perdant lay nekk quoi. Mhm. voilà mu ngi noonu ba tax na li ma koy conseil mooy na reste muñ rek te xam ne li ma ko waxee léegi rek yàgg yàgg moom. Mhm. dëgg dina feeñ incha allah. Mortala Gueye doon bëgg tëgg li nga xam ne moom moo di benn concert am. muy nit dof. ñu annulé ko moom wala sénégalais yu ci bëri dañu jàpp ni. ñàkk maanaam contre gi nga xam ne contre na ko. ni pouvoir bi di doxee moo tax mm-hmm, mm-hmm. ñi boycotté li nga xam ni mm-hmm. eh, moom moo di eh, ay concert am est-ce que eh, yow jàpp nga ni réellement noonu la demee ak lan moo ci yow sa taxawaay ci kii boobu noonu ci biir boobu noonu waaw euh, bon man mën naa jàpp ne li mu ak euh, euh, Ousmane Sonko ak aussi li mu ak Pastef loolu man sama sama gis-gis la man damaa jàpp ne loolu moo parce que c'est pas la première fois mu def lii def na ko ay ati at te yaakaar naa masul am maanaam ara arrêt bi nga xamante ne def nañ ko nii. Euh, bi ñoom bi ñu waxee dañ ne xaw ma lan pour pour problème de sécurité ak yooyu. Mm-hmm. man yooyu gëwuma ko bu fekkoon ne daf ko mas a def. Mm-hmm. Euh, mu débordé ah ah boo boobaa de mu mu mu mu indiwaat ko ren pour def ko ñu ne ko noonu parce que daaw bi ñu ko defee dafa débordé wala daaw géej gis ngeen li gis euh, xawoon na débordé nangam ak nangam léegi cette fois-ci du la ko may. loolu bu amoon sax ñu ne waaw mais masul am ñu xëy xëy xëy rek. kii defarlu ay biir am dagg jaay def lépp xam nga desul lu dul lii ñu ñu ñu ñu ñu ñu annulé li nga xamante ne euh, préfet annulé li nga xamante ne mooy concert bi. Mm. ñuy wax affaire de sécurité ak yooyu bon dama gisee ne ay tappale la quoi si sama xalaat du doy. Mm. léegi mbay mbay xam naa dañ koy jeexalee rek. ci mm-hmm. euh, tournée économique bi xam naa. Euh, interview bi mi ngi bëgg a euh, bi nga xam ne président de la république bi ñu nekk di ko def. Mhm. ñu gis ko fële ca Tamba. Mhm. Euh, niñ ko ak accueillir. Mhm. waaye itam mu mel ni dafa bëggoon lancer li nga xam ne moom moo di troisième candidature am. waaye dafa mel ni xaw na xaw naa ñàkk pexe daal ci ci ci niñ ko mën a waxee. pour pour pour jàllale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi. est-ce que tamit jàpp nga ni troisième candidature boobu. Euh, Macky Sall dana dana forcé def ko ndax ñëpp xam nañ ni bu fekkente ni constitution Sénégal bi rek lañ ko topp. Mhm. Euh, donte sax ñoom ñi ngi naan euh, mandat sept ans bi concerné wu ko mais. Mhm. Mm, constitution bi dañuy mënoo def lu ëpp ñaari mandat mhm. ba pare doole ci yu tegaloo. Mhm. bu doon dafa dafa ni mënoo def lu ëpp ñaari mandat euh, sept ans waaw euh, mais dafa ni mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo yu tegaloo waxul sax mandat la wala cinq ans mais mhm. ñoom ñaar a tegaloo kon mënoo mënoo def yeneen parce que tegaloon mhm. ndax jàpp nga ni moom ak fi jamono ji toll euh, kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko États-Unis mu moom troisième candidature dépendre ci constitution bi ci moom la dépendre ndax jàpp nga ni loolu lépp boo ko tënkee dafay firnde li moom dana jéem a forcer une troisième candidature waaw comme ni mu waxee rek euh, comme ni nga ko expliqué nii si si sa euh, question bu mujj bi mooy bu mu demee États-Unis wax ne moom troisième troisième candidature mu ngi dépendre sur moom. Mm. donc loolu bu ko waxee rek automatiquement rek même ñu journaliste yi ñu mu ko wax. Mm. wala boog ki mu ko wax war na posé wu la question ne est-ce que Sénégal kon am constitution. Mm-hmm. parce que bu demee ba président de la République. yow nga def euh, révision constitutionnelle en 2016. Mm-hmm. nga tracé li ngay ñu tracé lu ñuy tracé teg ne ah con euh, constitution bi dafa wax ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mhm. yow nga dem États-Unis ne loolu si yow la dépendre kon moom am na lu mu nar ndax lan moo wane loolu li ñu bind si conseil constitutionnel bi bi mu demee fële leneen la fa wax mhm. comprendre nga mu nekk na mbir moo xam ne parce que bu ñu fàttal la ko en 2011 bu muy wax naan Abdoulaye Wade euh, kilifa diine war nañu wax ak moom ndaxte aussi li mu li mu bëgg teg Sénégal bu ko mm. tegee mën na andi jëyam mooy boobu mu ngi wax su troisième candidature bi. Mm. yàlla def yàlla ñu fal ko yàlla def ñu fal ko 2012. moom pour dindi loolu. Mm. moo tax mu mu mu mu proposé euh, pour ñu àsek ñu def euh, benn benn loi boo xamante ne lu jëm maanaam pour réviser. révision constitutionnelle bi. moom ñoom ñu teg loolu ñu bind. ba lolo c'était pour manam pour éviter président bi ñëw naan 7 ans bi si la bokk wala cinq ans bi bokk si. Mm. c'était pour éviter ça motax mu tek loolu pour dindi li nga xamantene ne Abdoulaye baye nak fi. Mm. wa légui yow bo défé lolo. après nga bëgg a taxawat say allié ñi nga xamantene ne ànd ak yow. Mm. bëgg jaay intellectuel parce que maki wax na ko si benn vidéo hein. mu ne amul mbir mi amul intellectuel les conseil constitutionnel wax dafa leer nul ne peut exercer plus de deux mandats point mhm. bu le mandat est de 5 ans mhm. foofu ñi yem nous sax xam qu'est-ce que ça veut dire mhm. dafa leen bëgg wax à partir euh, du moment où nous ñu ñu def révision constitutionnelle en 2016 ba àddina tukki mandat bi cinq ans la du dëgg donc mon gisuma dara laa xam ne war na jar mu pour am troisième mandat selon moom ni muy doxalee fan yi ak ñi nga xamante ne alliés yi ñu ñi ànd ak moom gis ne ñu naan deuxième quinquennat te yooyu nekkul ci conseil constitutionnel bi mm. nekku fa li fa nekk dañ ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs point mm-hmm. amul amul amul maanaam mbir mi nekkul loo xamante ne euh, dañ koy jekkal naan sept ans bi si la bokk wala bokk non non amul sens bu boobaa sax mooy gën a ñaawle Ablaye Wade mm-hmm. ñu ñëpp duñu ay xale fekke nañu fi Mm-hmm. mooy gën a ñaawle Abdoulaye Wade parce que moom daf ko wax wax ko waxati ko ay ministre am député am génne si télévision rajo wax ko waxati ko donc tey gi doo xëy xëy xëy rek bëgg a lo loo ah nga bëgg ko gas suul ba pare tamit bëgg a jekkal li nga xamante ne nga conseil constitutionnel bi mm-hmm. voilà jërëjëf Mbaye xam naa dañ lay bàyyi rek ñi ngi jël sa temps nga mhm. tàggatoo ak euh, internet yi. Mhm. bu ko defee ñu joxe dig daje ci beneen jotaay incha allah. Mhm. waaw euh, li may nekk def rek mooy damay di jaajëfal euh, yow di la jaajëfal ndaxte boo ba tey ñu ngi waajal mbir mi yaakaar naa war na ma deux mois boobu ba <laughs> yaa ngi si. ma di la gërëm ba baax di gërëm tamit borom. borom borom ñaari sites yi Buzz 221 ak Info 221. Mhm. Euh, di leen ñaanal rek yàlla mbir mi dem nekk ay pourquoi pas mu dem ba nekk seen télévision bu mag a mag a mag a mag. Mhm. am rajo am tout. Mhm. man daal loolu laa leen di ñaanal yéen waa Info 221 ak Buzz 221 di lancer benn message rek euh, message bi nekk lenn la mooy ñu ngi dëkk ma li nga xamante ne mooy 2021 2024 képp koo xamante ne nag amoo carte d'identité wala boog sa carte ñu si def euh, non vote demal nga dem lijjanti loolu nga rek la ko. Mhm. ndax mooy li Ousmane Sonko di wax rek xeex bi yep li si jiitu mooy fexe ba am carte nga garde ko sa poste bu jour bi jotee rek ñu def li nga xamante ne moom la ñu def. loolu laa amoon lu may euh, lu di leen jaajëfal bu baax a baax kontaan naa lool lool lool lool si interview bi jërë ngeen jëf. cey jërëjëf. am na solo